mais ce débat yéen a ko instauré. en invitant Jean-Luc Mélenchon à l'université yéen a indi débat boobu est-ce que Ousmane Sonko ne pouvait pas s'en passer est-ce que le Sénégal avait besoin d'avoir d'avoir non en fait euh, gis nga gis nga tubaab tubaab lu mu bëgg a wax da koy wax. Mhm. ñoom amuñ problème boobu. d'accord amuñ problème boobu euh, moom li mu gëm moom lay wax. mais li ko Ousmane Sonko tontu leer na. vous avez manqué lan lan lan mooy ferme lan waxtaan yow ñaata ñaa ñaata ñaata omo nga nga xam ñu ne ñun la ci tawoon bi di na man xaw <laughs> temps en temps. waaw da ngay yu gars di wane. mais xam nit nii nii nii non non non. da ngay romb léegi nëbbatuwuñ de léegi de léegi nëbbootawuñu ñu ngi ci dëkk bi di dox di taxawaalu di dajeek nit ñi dëkk ci dëkk ci quartier yi ak nit ñi. et on compte sur vous. te pourtant dañ te pourtant te dañ leen dañ leen toléré. <laughs> non non non non non. dañ leen toléré. non non non toléré wuñu leen. ah mais attends ñu ngi ci koñ bi ñu ngi ci koñ bi di taxawaalu. chaque jour yaa ngi daja ñoom waaye doo leen laal boo leen laalee. tey non dama leen xamul en fait maanaam loolu la ah. maanaam ñoom dañuy nëbbatu parce que xam nañ ne. ku ci mm-hmm. fës li la ci fekk du la neex. Ah. am na ñaari exemple à Thiès am na kenn ku fa deewoon ñoom duñ ko suul. xoolal à Kaolack am na xam dañ ko installé xanaa doo xanaa doo seetaan TikTok. man je suis passé. ngi ci TikTok bi di def ay vidéo di wax fi ñu dëkk et tout tout tout sénégalais yi di leen s di leen seetaan. en fait am problème ñun ñoo njëkk am problème donc quand Ousmane Sonko dit que c'est toléré da ngeen di bàyyi mu sedd yéen. du ngeen ci dara non non cela ne cela ne veut pas dire ça. munuñ bàyyi mu sedd nañu xam parce que dans l'opposition da ngeen di virulent woon trop. ci question boobu. non mais xam nga xam nga balaa ngay balaa ngay euh, balaa nga koy faj. il faut mhm. nga am la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko fi mu ne nii tey mënu ko tere tant pour sans pour autant mu am la majorité de l'Assemblée nationale bientôt mandat député day jeex. bu jeexee nag mën nañu mën nañu mën nañu mën nañu vote. Euh, wala dissoudre assemblée bi dans les dans les voilà wala ñu dissoudre ah, assemblée nationale am majorité doo a mën a dugal ay loi ak yooyu pour ñu mën a am am dëgg dëgg dëgg la maîtrise. Mhm. waaw dans ce cas loo bëgg a def di nga ko def mais nii nii nii mënuñ ko parce que buñ ko bu dugaloon la loi tey waa benn boo ko yaakaar. mën nañ ko ñooy parce que ah. ils bokk li ngeen wax. non mais eh, ah mais euh, am na député yoo xam ne nii en fait ñoom daal duñ d'accord ci loolu la ah. duñ d'accord ci loolu. ndax lan c'est parce que ñoom dañuy jàppale gars yi lobby yi. député APR APR yi. li ngay wax garaaw na de. ah oui est-ce que am nga ci lu la leer. mais mais kii kii c'est pas parce que vous êtes au pouvoir maintenant que lu leen neex wax. <laughs> non pas du tout kii euh, Cheikh Omar Diagne lu ko yóbboon kaso. mook mook mook Jibril Waar la. mook Jibril Waar waaye je pense lu ko yóbbu kaso. Mhm. góor jigéen ñi la doon la doon la doon la doon la doon attaqué te Jibril Waar moo leen défendre mu ñu porté mu porté ko plainte. ça veut dire quoi. ah mu ko porté plainte looloo ko yóbbu kaso. Mm-hmm. ñooñu tey boo ñu demee assemblée nationale duñu voté loi bi. donc ñoom plus ah de temps ah le ah, moo koy il faut que sénégalais bi ñu bëggee mu changer dañ dañ jox sa waay léegi on